li dajale woon tey daal moo doon dañ doon euh, signé euh, dañ doon signé dañ doon xaatim euh, benn document bu nga xam ne ITFC def ci may xaalis Sonacos maanaam don la du lu nga xam ne dañ koy dañ koy fay xam ngeen suñu diggante ak ITFC dafa yàgg muy diggante sonakos ak ITFC dafa yàgg te euh, diggante la bu nga xam ne at mu jot rek dafay gën a suuxatu at mu jot rek dafay gën a dafay gën a dëgër diggante bu nga xam ne njiitu réew mi son excellence le président Macky Sall moo ko moo ko suuxat ndax euh, daaw rek euh, ki nga xam ne moo jiite ITFC ñëw na fi bi mu fi ñëwee daf ko dalal moom président Macky kooku yi tamit jël engagement ne jàppale bi muy jàppale Sénégal dina ko yokk te boobaak léegi mu ngi koy mu koy yokk ndax euh, daaw jox nañu euh, ñeent fukki million ak juróom ci ay euro boo ko xaymaa mu jege euh, fanweeri milliard ren tamit jox nar nañ ñoo jox ñeent fukki million ci ay euro tuuti moo koy manqué fanweeri fanweeri milliard te fekkoon na yi tamit li desoon daaw Euh, mu ngi fi muy ñaar fukki million ak juróom benn ci ay euro yu nga xam ne déjà mu ngi ci biir keesu Sonacos bu ñu ne woon suba suba nañu commencé def euh, campagne bi Sonacos dina mën a taxaw pour pour pour jënd loolu yëpp nag ITFC moo ñu ko moo ñu ko jagle donc gëm naa ne balaa yàgg fekki fan daañu euh, fixé nit ñi daañu xam kañ la traite di taxaw ren dañoo bëgg traité la taxaw ndax nawet bi teel na tàmbali kon euh, euh, mbay mi baykat yi ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ñu ngi ci yaakaar naa ne euh, tam gerte teel tàmbali naa am donc ñu teel a tàmbali teel a jënd teel a jënd gerte gerte gerte baykat yi pour que ñoom tamit ñu mën a gis njariñu seen seen ñaq te en tout cas ñun li ñu yàgg wax mooy dañu bëgg ñu yokk njëg gi nga xam ne moom la ñuy fay baykat bi te loolu am nañ ci yaakaar parce que ndax président Macky Sall ku déglu béykat yi la euh, ku déglu euh, ñu nekk si waa waa waa kaw gi la wante nag euh, comme du ñun ñooy dogal ci loolu nañu bàyyi fekki fan du ñàkk ñëpp daañ déggandoo ñaata la gerte di di di di jaar alors xam ngeen ni tamit Sonacos ci jàppale président Macky Sall ak jàppale gouvernement bi ministre de l' agriculture ministre des finances et du budget ministre de l' économie de du plan et de la coopération Euh, dafa nekk ci tànk yi yeesalaat euh, bërëbu liggéeyukaay yi te loolu euh, mënut a ñàkk ndax sonakos Sonacos bërëbu liggéeyukaay la bu nga xam ne dafa xaw a outils yi dañu xaw a màgget ndax nag Sonacos am na lu mat ñeent fukki at ak juróom waaw nit nag bu dee nit sax bu amee ñeent fukki at ak juróom dana am fu mu toll sakatu ak ay machine kon yu ci bare bari waaye nag machine yu dëgër lañu parce que ñi doon jënd nag jënd nañ matériel bu baax a baax ba tax ba léegi mu ngi mu ngi dox bu même bu fekkente ne doxin bi yeex na waaye nag Sonacos dafa jël ne dafa war a yeesalaat loolu dafa war a yeesalaat moo tax jël na lu mat euh, ñaari milliards ci koppari boppam dugal ko ci kawlax euh, Kaolack usine Ziguinchor jurbel dakaar ak euh, ak Louga ci effort yooyu nga xam ne nag Sonacos defal na ko boppam ci la. ITFC gis ko ci la ne moom mi tamit xaaral mu dugal ci loxoom pour jàppale Sonacos pour mu gën a yeesalaat ay kuréelam ñu jël lu mat cinquante mille dollars may ñu ko may ko waa Sonacos muy fanweeri million ñu may ñu ko bi ñu xoolee lu ñu ciy def nag ñu neen comme dañu nekk rek ci yeesalaat nañ ci jënd nañ yeesalaat laboratoire bu usine Dakar nga xam ne usine Dakar. Euh, mboolem dëwlin ji nga xam ne moom la ñuy defar ba ndax bala ñun bala ñuy jaayi dëwlin dañ koy analyser xool ba xam euh, war nañ ko mun a lekk wala war ñu ko mun a lekk xool compos composition en acide gras bi yëpp euh, ba nga xam ne dëppoo na ak norme nationale ak norme internationale yi ñu koy soog a yóbbu ci yóbbu ci yóbbu ci marché bi machine boobu nag dafa yàqu woon mat na fukki at ba tax at yi yëpp bu ñu bëggee def analyse yooyu dañuy dem fay ci biti wala sax léeg ñu jël analyse yooyu yóbbu ko bitim réew pour ñu andil ñu ko xam nga loolu nag booy fay d'abord dafay yokk sa njëg njëg gi ngay jaayee dëwlin parce que loo loo fay da koy tegaat ci njëgu dëwlin bi boo jëlee yi tamit euh, yëf yi nga yóbbu ko extérieur da nga fay mais ensuite dana am temps bu nga xam na nga ko war a xaar donc loolu tam doon yéexal euh, liggéey bi moo tax lii ñu ñu jox. nekk lu nga xam ne lu lu lu am solo la ñu war koo jënd benn chromatographe la tudd ñu war koo jënd ànd ak ordinateur am ànd ak logiciel am te personnel bi nga xam ne tamit moo daan gérer auto euh, chromatographe ba njëkkoon am xam nga loolu boo toogee fukki te mbir mi euh, liggéeyatoo ci mën nga dem ba euh, sa xam-xam xaw a xaw a manqué wala boog fekk na booba technologie bi avancé na moo tax tamit ñu prévoir ci dara lu nga xam ne dañ leen di formé waat. pour que ñoom ñu mën a ñu mën a defar euh, man ñu mën a euh, yore euh, équipement boobu man koo toppatooy tamit ba nga xam ne du gaaw a yàqu man koo toppatooy tamit ba nga xam ne liñ ciy xaar daañu ko daañu ko daañu ko jox kon daal mbir nga xam ne mbir mu am solo la ñu ko doon signé nag ak directeur général ITFC nga xam ne moom ku ku bëgg Sénégal la ñëw na fi daaw président Macky Sall dalal ko. Euh, tey tamit équipe yi nga xam ne ñoo nekk ay ITFC tamit vraiment ay ñu bëgg Sénégal lañu parce que dañoo xam aussi euh, position Sénégal ci wàllu l'islam ci ci ci àdduna bi te loolu moo tax kuréel yooyu bu ñuy jëflante ak ñoom toujours dañuy sawar rek pour jàppale Sénégal benn ñaari bu si dañoo xam ne Sonacos lu muy def yëpp pour jàppale ñi gën a néew doole la muy ñi nga xam ne ñoom ñooy béykat yi ñu daal sant nañ ci bu baax a baax man ak ñi nga xam ne ñoo may jàppale ci liggéey bi.